man at bu jot am na cant goo xam ne dama koy def fecce yof mu jote woon ndigal li ci sëñ Saaliw dal na yàlla yokk leeram euh, mu jaarale woon ko ci sëriñ Fàllu moom sëñ chony bu yàlla na fi yàlla yàggal téwér euh, mu am ren fukki at ak ñett euh, may faral nag comme am na cër bu ñu am ci réew mi ci diine ji amit cër bu ñu am ci réew mi ci administration actualité fonctionnaire la en même temps yor di taalib sëñ Tuubaa bu ñu dénkub cër kon léeg-léeg day baax ma mën a waxtaan ak waa réew ma natt ko nag ci jamono ji mooy saa yu sama cant gi jubee ci lay ubbeeku pour accueillir presse bi accueillir ñëpp ñu waxtaan ci li leen ñor ci man ci lañ bëgg a xam ci man ci dund gi ci réew mi ak li xew eh, bu ko defee nag bu jàllee ma xaarati ba déwén donc at mu jot benn yoon lay wax ci presse bi par an mooy bu cant bi desee ay fukki fan ak juróom euh, fi mu ne des na parce que le vingt huit le vingt neuf le trente juin la ca Yoff euh, donc des na après deux semaines donc ma war a commencé waxtaan bi yàlla dogal ren tàmbali gi fekk ma Touba ma ñëwoon wori muy bis bu tedd di bis bu màgg ma ne kon naa ko tàmbalee ci Touba gi euh, ndax man damay taalib Serigne Touba nee sax mbokk la waaye taalibe gi lañ mës a doxal te lool tamit moo ñu gënal yàlla nag boole ñu tamit ak sëriñ Fallou moom sëriñ Chouaib bi mu doon suñu bunt ci sëriñ Touba di sama sëriñ biñ àndee di liggéey di liggéey bu benn jamono daa ànd man ci sëñ Saliou daal ma koy nuyooleel ne ko kii sa mbokk la fekkoon na it sëñ Fallou xamoon sëñ Saliou xamoon sëñ Saliou ne ko waaw Sàllaw sama sama jarbaat la sama sët la tamit dañ faal ne ko waaye loolu taxul ma indi fi taxul ma indi ko fi tax ma indi fi dafa bokk ci samay waa kër maanaam daa jébbalu ci man àttan ci man lu nekk te man kuy àttan ci man dara sëñ tubaa rek a tax fa mag ña daan àgg ak sëñ tubaa ba mu leen di takkali garab moom àgg na fa ak man te la sëñ tubaa noonu mënuma ko te yaay sëriñ tubaa mu ñëw joyal la suñ Saaliw daay koy xamal ne ko ba nga ko defee ci sab xol loo ko sëriñ Tuubaa nangu loolu nag ginnaaw bi ñu nekk soow sëñ Fàllu ci boppam daal di woo taalibeem yëpp woo waaleem yëpp taalibeem yëpp ma ñëwaale mu ne daa am digal lu jóge ci sëriñ tubaa wàcc ci sëñ Saaliw ñëw ci Mansour mi ngir bis di ci tey boo kenn woowee ti Mansour nañ koy woowee Cheikh Mansour daan ne ñaareelu ndigal li nag ci man la wàcc man sëñ Fallou ne dimanche bii di ñëw boobu bisub dimanche la woon euh, na wax fu mu bëgg ñu fekk ko fa décorer rek jox ko maanaam li li firndeel ceex gi ñetteelu ndigal li nag mooy na ko def cant saa yu ko jàppee baax na waaye na ko saxal. cant gi euh, euh, man sax xaw ma ndax am na innovation ou pas cant gi maanaam li li ma mun a expliquer rek mooy mun naa la wax programme cant bi ñetti fan la. Euh, chaque année euh, dañ ko daan def samedi gi njëkk ci mois de juin euh, ren daaw ak ren samdi gi njëkk ci mois de juin dafa dugg ci koor gi te koor jiitu yëfi seen juin damay xaar ba mu jàll moo tax daaw ak ren yëpp après koor gi lañ ko def xëy na déwén wala déwén jéeg dina fekk koor gi romb ko ñu tàmbaliwaat ci bis bañ ko daan def mais toujours ñetti fan lay doon maanaam day commencé alxames ajjuma ak gaaw ga bi moom laa tuddee bisu maam Cheikh Ibra Fall wax naa ne maam Cheikh ku bëgg dara ci sëñ tubaa néewuma boo demul ci moom doo ko am de waaye boo jaaree ci moom mën naa gaaw te mën naa yombit euh, beneen bi ci des euh, ma gis li mu liggéey ci yoon bi daal ma naw ko loolu ndax képp koo xam ne ab taalibe nga war ngaa sant Cheikh Ibra képp koo xam ab sëriñ nga it war ngaa sant Cheikh Ibra Fall ndax taalibe ni ngay doxee amuk taalibe di joxe àddiya di raam di déglu ndigal ca moom nga ko roye sëriñ ba it boo toogee ay nit di la raamal di la joxi àddiya di la dégg say ndigal ak nàngam Cheikh Ibra Fall ko wone ah, ma xam ne ma yaakaar ne su ma ko utalee bis ci samay bis ma yaakaar ne dina ko neex te dina neex sëriñ Touba ma utal ko bis bu njëkk bi muy bunt bi it baabul muridi bis boobu nag may nit nag boo ko dénkee sa bis boo ko boo ko tuddee sa bis war ngaa xool dara ci lu koy màndargaal moom ci nam daan doxee ma gis ne Cheikh Ibra buur la woon ci njabootu buur la bokk bokk Damel du Kayor xaafisu alxuraan la woon romb na sax wàll ku ne xam na ni meloon ba pare amoon teraanga dañuy wax toujours ne 1919 gars yi ci documents yi dañ bindoon ne Maam Cheikh Anta moo ëppoon xaalis ci Afrique te am na ñu ne Cheikh Ibra Fall la ko ëppoon xaalis mais pourquoi léegi mu daan yalwaan am nga alal buur nga naa nga pare wël di màjjal alors mu ma réfléchir ci ma ne pour man xam naa dafa am lu a jàngale. mooy yalwaan ñaari action moo ci am joxe ak laaj pour man kii laaj te man ko day wone humilité day jàngale ne nit daa war a oyof kii joxe it say da ciy jàngale ne koo tane danga ko war a dimbali ma ne kon bis boobu bu ma xëyee naa ci def une action de solidarité fàttaliku Cheikh Ibra bëgg it ku ko ñëw dégg loolu bu dee man nga nga di ko def di solidaire bu dee munoo it bul am rëyuk dem ca kaman mu dimbali la ndax nit day oyof te Cheikh Ibra Fall loolu la jàngale ci màjjaalam googu sama xalaatu bopp la nag man tamit may def at bu jot may jël ay ñoo xam ne ay personnes démunies lañu vraiment dañoo ñàkk ba ñëpp xam ko mais def ak ñoom ay ndimbalante benn at laa ko mas a def def ci sama xaalis bopp at ba ca topp nit ñi dañoo bëgg lu baax ñi ñi mën ñëpp.